comme ay doj. nit n'arrête de le répéter wax nga dëgg de chaque jour nga wax leen ko. huit cent quatre-vingt-dix millions. Mm-hmm. ñu ne sàcc nañ ko kër diw. diw moomu ñëw taxaw publiquement taxaw ak ay nit ne day dajale ay jën jeunes ñuy wax ak ñun ñun sénégalais ñun ñoo ñun ñoo sàggan parce que yabaate. Mm-hmm. weesuwul loolu alors que ci saa si les corps de contrôle dañu waroon ne bëri ñu ne kii di Farba Ngom woo nañu ko fu ko woo dañ ko woo pour laaj ka auditer ko déglu ka mm-hmm. mu mhm. leeral rek. Mhm. Karim Meïssa Wade dañ ko jàpp pour enrichissement illicite. ñu ne leen lan mooy enrichissement illicite ngeen ne waaw dafa am ay entreprise prête-nom ak kii waa foog mu indi charge de la preuve la charge de la preuve incombe à l'accusateur yow yow mi ngi ma jiin sàcc. Mhm. ñu ne la lu mu sàcc nga ne noonu nañoo wax li mu sàcc. loolu mu am. jàppale ba pare ne la va va va chercher des preuves. waaw waaw waaw demal demal ne la dama indi ay preuves ne yow sàccoo. c'est très grave. waaw nga xam dañoo sàcc këram. kanu jàpp moom ñuy wax ne soixante mille francs lañ ko doon fay mu sàcc trois cent millions l'un dans l'autre cet argent là état comme moom enrichissement illicite ci lay dox mais na woo Farba Ngom laaj ko mais defuñu loolu ñu ñuy nargué dajale seen ay jeunes démb taxaw teg ci di menacé menacé nag moo tax Sénégal <laughs> ma wax ko fii. waaye nag booy jënc huit cent quatre-vingt-dix millions ci kër di fay nit soixante mille dafa mel ni bu la jëlee est sàcc la. Mamy Samba ak Nabokor. oui damaa wax benn affaire bu simple te compliqué mhm. wu. Mhm. fii la kaa waxee yàlla nañu yàlla may fekke ak tal. Mhm. may ko ñëpp. Sénégal ñun Sénégal ak sénégalais yi il ne faut pas ñu toog fii di triste émoticône tristesse sax la ñu war a baax na nanuy def émoticône mer xulil nanu bàyyi émoticône tristesse parce que c'est c'est réducteur dafay mel ni mënoo ci dara ak ñoo si mën dara. nanu jóg lijjanti lii ala yabaate xam nga yabaate mooy maanaam respecté wun nu faale wun dañ naan dañuy wax rek booy wax ak ñoom sax dañ la naan ba kenn génn fi may wax keroog am na ku ma ñooñu di wër di saaga kii mu ngi saaga sax mami sàmm mm-hmm, mm-hmm. di di di waaw léeg-léeg ñu ñamal ma nag xulil mm-hmm. <laughs> billaahi wallaahi tallaahi ak sunu borom mm. nun danoo wakkilu ci sunu borom sunu jaamu matul de waaye que moonu leer tarfatal ay nit ci suuf moins zéro ba plus l'infini ne we don't given about la ca dee ca diggante ba duma ma ko tudd yéen xam ngeen li maa wax we don't given about ca diggante ba am na lu ci ne trois points de suspension laa fay def you faalewuñ leen parce que Sénégal danoo am alal ju dul jeex sunu état jël ko di ko bazarder pour ñoom seen mbir daal ñoom seen affaire baax le reste il s'en fout et nu tous ñu toog la xool la nangam nangam la mën nañ koo wax fii ba suba élection législative yi bu ci Yewwi Askan Wi bokkul bu ko sénégalais yi nangoo moom bu yeboo moom métier yeeg yëpp dañuy arrêté wax moom dootuñ ko fi def. Hmm. bu dee sénégalais yi nag bëgg nañu réew mii na ñëpp jóg ñu régler problème bi.